Eh, lii nga xam ne moom ngeen fekk si tey jii ci muy jàng alxuraan bi njaal bi yan leen yàlla defal jàmm yéen seen bopp defal ko réew mi nag gannaa boo xam ne ñu ngi fi tase nii li tax ñu fi tase mooy li nga xam ne xew na ci réew mi mooy accident yi nga xam ne mu ngi xew te accident yi métti trop trop trop trop loolu la yàlla dogal yàlla lu mu dogal nag loolu moo ko neex kon dañ koy sant yàlla gërëm ci yàlla waaye di ñaan yàlla itam ndax yàlla oyofal buum bi mu gëj waaw ñu ci jaale président de di jaay itam gouvernement bi yëpp di commencé ci ministre bi ba ci ki ci gën ñu ngi koy jaale waaye ñu ngi jiital ci njaal googu président de la république di njaal jaal tam ki nga xam ne mooy préfet bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ak meeru dëkk bi préfet Fall nga xam ne mooy meeru dëkk bi euh, di Wiye Cissé di ñu koy wax Obama ñu ko ciy jaal bax di jaal itam mboole ki nga xam ne notable yi ci dëkk ak kilifa yi nga xam ne ñu nekk ci biir ak borom xam-xam yi man mii di wax ak yéen man maay ki nga xam ne maay président de imam et de Joloma maa ngi tudd Souleymane Guèye ki nga xam ne moo nekk sama wet nii অসমৰ কিছুমান নাই ñu koy wax Thierno Ibrahima jogo jallo wa ki nga xamne gor gi mo nek fi mo nek sama kooku ñu koy wax ne euh Souleymane Mané ñoo ñi nga xamne ñoo fi taxaw fi di len siaré di len gërem di ñaan yalla ñu yalla bo le defal euh ñaan gi tambal nañ ko ci batu bismillah wa yal ko yalla jëmele kanam wa ñu nga ñaan yalla yalla ci yalla tur ndox mu sedd ci sahir ak ci baatin yalla amna ko man nako ko ko yalla def kon nak ci gàttal dal li moy li nga xamne mo moo ci sefi tay fi tey ji jàng nañ fi alquran nak jang nañ fi yaasin 313 yasin lañ fi jàng 313 lañ yaasin lañ fi jàng ci bisu àjjuma bii yéene ko ñi nga xam ne jiitu nañ yéene ko borom accident yi ko ñi nga xam tam ñoo jur ñu def accident waaye di ko yéene di ñaanal président république yàlla may ko xol bu sedd yàlla defal ko jàmm ndax fii ci wax dëgg yàlla président de la république gis nañ lim li mu fi def gis nañ li mu fi liggéey wax dëgg yàlla kenn ku nekk war na ko sant war na ko gërëm ku nekk boo tëddee ne la guddi ba bor set da nga war a sant président président de la république dam fi ñëwee la affaire bu ay muy bourse familiale bi lim fi liggéey ci ay juma gis ko kon bu taxawee di def la lu baax tam ci ngir nga xam ne yàlla yóbbu na leen tam ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm di ñaan yàlla yàlla may ko fan bu gudd ak wér-gu yal na ko na ko yàlla jàppale kon nag lii mooy li nga xam ne moo nekkoon suñuy kàddu gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci rasulillah ñu ngi leen di wax ne wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu di leen wax tam ne in uridu ila islam mastataatu wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi